asalaamaaleykum euh, ami téléspectateur euh, Guédiawaye info tey ñuy war Nous nii ci à chaque fois ci à la recherche des jeunes talents nous ñu seet wa Defal Nice Fi ci foyer des jeunes wala espace jeune bu Wakhinane Ñu seet wa Defal Nice ci seen pleine répétition ñuy sen une cinquième édition Nice Time ren une cinquième édition Nice Time Defal Nice

Bon, actuellement, nous euh, avons Nice Time 5e édition, le 11 août 2018, euh, au foyer des jeunes de Wakinan. 5e édition Nice Time. Nous avons fait un job qui est très important. Nous avons fait un job qui Nous avons fait un job qui est Nous avons ni am na ay innovation yoo xamante ni dafa nar a amaat ci cinquième temps na cinquième Nice Time bi loo ci wax wala looy looy expliquer yow. bon ren Nice Time bi am ren cinquième édition bi par rapport ak édition yi jot a passé donc euh, du benn quoi parce que bii benn euh, y a l' en vue la sortie de l' album bon d'ici euh, ci mois de septembre bi indi nañ tamit yeneen new truc yoo xamante ne yu ba tàkk yu amul fenn quoi Nice Time ren moom ku ko tardé moom bon mu ñu la koy nettali sax damay ragal da ngay mer quoi waaw nga gis ni géejuwaay info ñëw na nekk benn télé yi en site bu bees nekk géejuwaay implanté wu biir géejuwaay mais moom léppam da koy yemale ci biir jeune talent yi qu'est-ce que tu en penses et looy wax ci loolu. bon euh, maa ngi rafetlu trop trop trop euh, le fait que lu toll nii géejuwaay nii ñu am euh, suñu site bopp mu tudd géejuwaay info parce que ay jeunes la ay ndaw ñoo xam te ñoom ñoo fa nekk te nee la jeunesse c'est un moment passager, moment où.

da ngay gis ni muy mel mais fii boo ñëwee xool day mel ni am na ay manquement est-ce que amul loo xamante ni dafa manqué yéen ngeen war ko demander war ko wax gaa yi ñoo jàpp ci. bon euh, ñun ñu ngi si suñu coin di travail dur xam nga à ce que xam nga rek pour ñu mën a génn quoi ñun lenn rek la ñuy euh, solliciter mooy maanaam euh, bu ñu xewlee na population bi <coughs> excusez-moi ak. autorités tamit xam nga bon ñu ñëw teg si loxo xam ne ay doomu géejuwaay lañu fii la ñu juddoo yaroo fi màggee fi suñu lépp daal fii la ko tu vois. kon li ñuy wax ci géejuwaay gëm seen bopp kon loolu ngeen def. waaw géejuwaay dafa gëm boppam quoi te incha allah war a ci kanam rek lañ jëm quoi waaw. géejuwaay dafa gëm boppam comme ni ko Alain waxee nga xamante ni moom bu wayee nga kontaan ndax baat bi dafa neex lool damay dem ci Habib Noël l'homme au fard d'or Habib na nga def. sant mu ñëw moytu rek Matar. waaw ah, mais Habib dama la fekk ci ben ruq ko nga tok toog géejewaay da lay gis ngay dox di dem mais amna lo xamni mo ngi ci yow mais day melni xamuñ ko te dafa doon lo xamante dañ kaa wara a fësal waaw lolou deug la en fait man euh, dama nek nit ko xamantene dafa bon je dirais pas modeste mais très na timidité la quoi en fait nit ñi duñ ko xam suma yégué kaw sen parce que suma yégué kaw sen damay nek benen nit quoi lolou c'est normal parce que je suis artiste. mais en dehors de ça man dama timide quoi nit ku timide la waaw dama noppi quoi. Habib nit bu timide la mais ba des seen la tamit ah. <laughs> waaw waaw waaw mais c'est normal artiste moom mbër boo ko fekkee ci fu muy bàkkoo doo ko xamee par rapport ak bu toogee gàllem. bu tekkee jaaj yi quoi. non man du ma takk jaaji nag <laughs> non du ma takk jaaji nag du takk jaaji mais instrument yu may dégg rek. non mbër day takk jaaji mais woykat bi am na lu nekk ay jaajam. waaw bàyyi ma wax la sama jaaj moom laa lay wax ni <laughs> instrument bu ma ko déggee rek mooy que ne nekk naa beneen nit ci kaw seen man noonu laa mel instrument man moo may dooleel quoi su ma déggee instrument de musique rek je suis une bête de scène changé naa carrément dootoo ma xàmme. mais am na ñoo xam ne dañuy dégg defal naa koy teg ci wàllu. musique kese mais day mel ni defal nice am na leneen loo xamante ni dañ ciy yëngu di ko def. Mm-hmm. ok defal nice boo déggee tur rek maanaam amu na lépp quoi def lu nice def lu nice par rapport à par rapport ak lépp sur le plan sociétal da ngaa war a def lu nice sur le plan comportemental amit da ngaa war a def lu nice donc ñun ay ay ay ay ay ay artistes yu nekk au devant de la scène lañu donc nous nous devons. de montrer le bon exemple dal danaka donc def lu nice si wax def lu nice si jëf ak ci nekkin. ak def lu nice ci comportement man man man man man sànq gis na la ngay jël ben ben kopp kaasu café ni diko ko ci biti loolu est-ce que ci defal nice la bokk yow. <laughs> non ma tar ma sa salde <laughs> <laughs> man na ko Matar bu ma sosal de. Ah, non dans le cadre général xam nga tey jii nii boo nee defal naa nga ne defal naa si jëf defal naa si comportement defal naa si wax mais am na ay fait yoo xamante ni defal naa la parce que tey boo xoolee suñu environnement bi nu mu tëddee nii day mel ni manqué na defal naa li dafa mel ni defal ñaaw la de. ok léegi man man man loolu dama ciy sawar a wax quoi damay damay exhorter monsieur le maire wala monsieur les maires messieurs les maires ñu jàppale ñu si côté boobu. parce que tey di nga gis waay yoo xamante ni dina dina dina dina naan taas taasu taasu kafeem wala taasu meewam du am du am du gis fenn poubelle boo xamante ni war na ko fa mën a mën a mën a a sànni quoi donc damay exhorter monsieur les maire ñoom ñu jàppale ñu si loolu war nañ mën a créer benn environnement boo xamante ne environnement bu sain lay doon créer ay poubelles yoo xamante ne nit ki su lekkee dina am fu mu ko sànni yaa ngi dégg ñu jël ay nit yoo xamante ne dañ leen di fay ñu koy jël par mois di ko yóbbu par exemple xam nga loolu xalaat la daanaka monsieur le maire wala wala je sais pas monsieur le président ñu wara jappalé ci lolu manam maanaam lu nit ñi di def té du am sanction. yaangi dégg donc bu féké né damay sandi ci mbalit bi te amul sanction bu suba damay sànniwaat donc il faut mu am sanction bala sanction yi di ñew ñu commencé défar défar lolu ba ñëpp gis ko yaangi dégg après ñu indi sanction yi ku def naka sudul nonu ñu dal sa kaw. kon monsieur le maire défal naa ñoo ngi leen di def ben appel bu solennel à ce que dëkk bi naaj parce que dëkk bi tamit dafa wara a kon monsieur le maire waa defal naa ñoo leen woo porteurs de voix comme ils sont ils vous demandent de venir les assister à ce que dëkk bi gën a nice mais bu ñu demee ci loolu dafa mel ne dafa am loolu la ñuy waaj muy cinquième édition nice time mais day mel ne Habib loolu bi ngeen ko tàmbalee yàgg na de ak lan ngeen ci daj ak yeen effort ngeen ciy def ak ñen ñoo ci ñëw di ci jàpp ak ban vision ngeen am ban gis-gis pour di teg loolu noonu quoi pour euh, la cinquième fois ngeen koy def et puis est-ce que mos ngeen am soutien maire bi wala soutien wu kenn koo xamante ni tey benn personne de ressource la boo xam ne mu ngi la ñu jàppale ba à chaque fois yéen ngeen koy def ba mu nekk seen juróomeel. ok boo xoolee sax normalement exactement nous en sommes à notre sixième année donc daaw defuñu édition bi parce que organisation bi dafa métti moo tax ñu jëli doole ren pour ñëw def cinquième édition bi parce que daaw defuñu ko woon. donc pour te dire naaj saa benn événement boo xamante xamante ne la gars yi dañ koy xaar émergement bu far fi ci Guédiawaye parce que man damay ñëw ñu may wax ay nice time ma ngi koy dégg di gis statue mi taw ñaata at ñaata. ñaata noor ñaata nawet loolu yëpp dëgg la en fait defal nice bi mooy cinquième fois muy def édition bi donc euh, c'est un rendez-vous musical boo xamante ne dañ ko def en live live ci ni nga ko déggee nag en live. live nga ma wax de mais eh, eh, eh, Habib dafal Nank live fi ñu ko fi def doon ay jeune talent bariwul ñu ko ñeme bariwul live dafa metti dé wa mais première fois première fois buñu ñu dañuy def nice dañuy def nice time mais dañ ko bëgg def en version live gars dañu taxé da dof yeen da ngeen dof da ngeen fuy da ngeen comprendre nga maanaam duñu comprendre sa vision quoi en fait ñun on vise toujours loin manam pas à chaque fois ñu def lu ñëpp di def donc pour se démarquer pour se décaler il faut nga def lo xamante nit ñi defuñu ko donc dañuy gis gaay yi def ay ay concert playback ñun ñu ne dañoo bëgg organiser un concert en live avec tous les instruments possibles donc loolu lañu def mu réussir ñu continuer di wëy di ko def donc live boobu noonu ren moom la ñuy indiwaat cinquième édition Nice Time boole ci yenn affaire yoo xamante ni incha allah boo ñëwee di ngeen ko découvrir dina rafet dina neex dina xum inshallah ale ga gaa jege si ma pour ñu jël leen yéen ñaar quoi parce que ñoom ñoom ñaar ñi ñoom ñoo nekk waaw ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk bandi bandi djéjé yi quoi mais may dégg léegi ana di wax ci ne dafa am benn album boo xamante ni yéen koy waajal album boobu nu mu demee yéen ñaar laa ko posé yéen ñaar yi di ci wax album yombul de. allez album yombul de. waaye euh, yàlla def na comme ni nga koy waxee ni ñaata at single boobu noonu quoi ñaata at bon ñu ngi ci game bi bon euh, di job incessamment xama à que ñu jëm kanam noonu ba yàlla ren la def nii quoi ñu signé benn label waaw war a génne produit bi du yàgg dara quoi après nice time bi nii rek di ngeen gis ni album bi dina génn quoi. Habib yow sa sa sa sentiment ci. album boobu noonu mu doon loo xam ne doom la joo xamante ni yàgg nañ kaa ëmb mu war a wasin nag waa ah? waaw mais liggéey rek liggéey rek boo xoolee euh, label bu ñu nekk néegu rab la tudd dem nañ fa. néegu rab loolu war na garaaw de. ëpp na garaaw bàyyil ba dem foofu euh, dañ fa dem dugal fa suñu ñaari son mooy ñaari single yu ñu lancé noonu mu ñaata at ak yóbbaale ma dañu génnee ñaari single yooyu fay suñu xaalis génnee single yooyu tasaare ko si nit ñi. bon bëggoon nañu euh, au préalable bëggoon avant bëggoon nañu génnee album bi ak suñu propre moyen mais ñom bañu déggé suñu suñu ñaari son yooyu noonu dañ na ah ñii kat dañ leen wara a signé ndax dañuy def dafa rafet donc lool moy indi. muy defal nice quoi ñi li ñi def dafa nice dafa dafa dafa wuyu seen tour defal nice. voilà donc lool moy indi donc lool moy indi lool moy indi lool moy indi signature signature contrat bi pour un an ak label bobu pour la sortie de notre album. donc euh, un an yi c'est renouvelable donc dinañ xool ak euh, label boobu na lañ mën a liggéeyee pour promouvoir groupe bi pour groupe bi dem ci kanam a kanam waaw. kon yéen da ngeen wane ne defal nice di ngeen liggéey liggéey bu rafet bu nice def ñaari single kese ngeen joxe ko ah gars yi ne dañuy signé contrat mais gars yi kon yéen garaaw ngeen de yéen foo leen dëkk yéen foo leen dëkk yéen foo leen dëkk. bon ñun géejuwaay bii lañ dëkk waaw euh, jaxaay. xam nga jaxaay boo ñëwee ba marché Ndiarème fa la Habib dëkk man maa ngi dëkk Daaru Xan fii euh, yàlla def ni euh, maa ngi moom euh, li ñu lu musique bi ñu boole nii lu yàgg la quoi lu yàgg la quoi ñu koy def teewlu ñun gisuñu distance bi entre ay marché Ndiarème ak Sëñ Assane quoi parce que géejuwaay benn bopp la quoi kenn mënu koo xar ñaar yaa xam nga nekk marché bees marché Ndiarème Mbaye laay xam lépp benn la quoi xam nga donc tey ji nii. Euh, du ma ne euh, dañuy jël suñu bopp féetale naan ay jaxaay laa dëkk wala jibo wala diisoo wala bokk jëm quoi pour ñu géejuwaay la rek quoi te géejuwaay yëpp benn géejuwaay la quoi parce que tey jii nii boo génnee dem euh, soit au Parcelles Assainies wala Grand affaire bu ñu la foo dëkk géejawaay nga nga laa dëkk boo ne ay daaru xan laa dëkk daaru xan ban géejawaay xam nga donc géejawaay bi moom mooy dellu soit quoi donc ñun géejawaay lañ dëkk quoi moom la ñuy ndamoo.

Euh, bëgguma dégg Fou Malade mais étant les jeunes talents xam yoon yéen da ngeen da ngeen garaaw xam nga jeunes talents yi booy xool ñi fi nekk ñoo daq woy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw boo ko seetloo mais dañ leen gisuñ quoi ñu gis ne ci côté jeunes talents waa plus particulièrement rap parce que bu dee mbalax la yaa ngi dégg ay boo yoo xamante ni tey Sidi Diop Thiat Seck Mboy Saliou ay Bas Diagne yaa ngi leen dégg partout mais ci matière de rap laay wax est géej waay tardé wu ci. mais ñun defuñu rap daal defuñu rap de. yéen loo leen def yéen. Euh, defal naa ñun musique la ñuy def donc la musique en général nous faisons du tout fu suñu inspiration fu mu ñu yóbbu rek ñu def ko. vie de l'artiste. ñun loolu la def donc du ñu du ñu ne dañoo am concept bi que dañuy def hip hop wala dañuy def nangam nangam on fait du tout dañuy def reggae dañuy def soul rhythm and blues ñun lépp la ñuy def lu sentir def moom la def. waaw waaye booy ñoo garaaw ko yéen. sax ngooyaan dañuy def ngooyaan. nga ni. bu ñu santiroon ay mbalax ak affaire yooyu noonu bu ñu sant dañ koy. ale ngooyaan dafa garaaw de. ah damay abbi ndaga mu mu léegi. Ah, Habib ngooyaanal ma xool. <laughs> sooy la jali ñaañaay sooy jali dafa rëbbi woon sooy fa jali sooy la jali ñaañaay sooy alburi anga jolof lajoor anga kajoor yaasin buuba nga waalo maba jaxoo ngay nelaw ca siin déglu leen ma aluin situ Diatta gaende kasamas ja soy soy fa soy de jali jaay soy lo ci tey yow ya, Habib. ma ci dara. <laughs> walé gi mi melni ni yéen a ngi préparé benn guddi mais nah, je pense que ni wax len ko wo àddina ñu déglu len à travers la télévision Guédiawaye Info. waaw ñaata at ñaata taw ñaata nor ñaata nawet. ñuy xaar album bi moo ngi ci yoon bi moo ngi ñëw mais tamit ñaata fan yoo xamante ne ñu ngi si ñu ngi si nekk di répété ay répétition yu métti yoo xamante ne pour waajal pour waajal euh, le 11 août la quoi daanaka instant yi pare nañ ñu ngi si réglage réglage réglage euh, ces dernier réglage yi donc yaakaar naa lu si des bëreetul di woon nag bépp bépp bépp waay bu dëkk bu dëkk géejawaay bu yeewoo géejawaay ak feneen fépp ci ndakaaru ci Sénégal ba doon yëgee concert bi Je vous ne defal nice mo ngi di le samedi 11 août 2018 à partir de 21h pour un concert live suivi de soirée dansante bu len ko kenn netali ay invité yu graw ay affaire yu graw ñu len fay xaar salaam bon asalaamaaleykum asalaamaaleykum géejawaay waaw seeni doom ñoom ñoo aayee donc bëgg yéen ñëpp nii ngeen ñëw teewe su ko defee ñu def euh, showcase bu nice waajal nag album bii di ñëw quoi neen ko gàttandu quoi na nekk album boo xamante ni bon bëri na ay titre ay euh, thèmes yu am solo xam nga di ngeen di ko kiife daal après ngeen gis lan la seeni i doom liggéey quoi mais encore une fois maa ngi leen di ñaax ngeen ñëw seetaan si seen i doom waaw le le 11 août 2018 euh, au foyer des jeunes de en face euh, terrain Ndiarème euh, Noël Habib xama ak Lynch ñu def showcase bu toj bu amul fenn peace bon franchement moom nice time bi amul amul thème franchement amul thème bon comme son nom l'indique rek nice time ça veut dire nice time donc come and have fun ba leen ñëwee da ngeen am da am da fa da ngeen fekk li nga xamante ni maanaam boo fa jugee di nga maanaam di nga enjoy quoi di nga enjoy quoi di nga xamante ni yow ñëwoo pour perdre sa temps en fait. Hmm. Hmm. defal naa ice yeah Nyata um, nyata to, nyata no, hey nyata noe. Nyata um, nyata to, nyata no, hey nyata noe. onekji alubi gisumala nekji alubi gisumala wande tay ñi bisina fekk la yow nga màgg o gis la xale la ma laaj la yow ki ku kam nga ne ma sa doom ndekete yow dang maina ngani masadom nande kiti avi avi avi dang maina ra ra ra ta ra ra ayno oh. ayno ayno oh. ayo yesu ya je foi